Sud FM. Bienvenue à vous dans ce zéro heure, une édition d'information que nous débutons avec les négociations entre les délégués syndicaux de la CNO et la direction générale qui n'ont pas donné de résultats Les syndicalistes campent sur leur position et comptent mener ce combat à un niveau supérieur, déposer une notification de conflit collectif auprès de la direction du travail. Écoutons Marba, délégué syndical à la CNO, au téléphone avec Birama Ndiaye. Le vendredi dernier, on était en train de discuter avec la direction générale pour les négociations afin de trouver un terrain d'entente. Donc, euh, les, la réunion a démarré 9h30 et s'est Donc, de 9h30 à 17 vraiment, il n'y a pas en résumé. Ce qui s'est passé, c'est que la direction est venue avec une volonté manifeste les travailleurs, de ne rien la table. Nous avons discuté, mais la direction était dans une dynamique de marchandage de bas niveau, comme dans un marché au détail. Vraiment, on est très déçu de cette attitude-là. Et cela, sans doute, a conduit à un non-accord entre les deux parties. D'accord. qu'est-ce que vous comptez faire puisque euh, la direction a donné une fin de non-recevoir à votre requête Voilà. Puisque les négociations depuis le début de l'année traînent face à la mauvaise volonté de la direction, nous, nous allons prendre notre responsabilité. Nous allons dans un premier temps déposer au niveau de l'inspection du travail une notification de conflit collectif. Ensuite, si cela ne donne pas grand-chose, nous allons passer à l'étape supérieure en convoquant la presse pour une conférence de presse, en, mobiliser les en mobilisant les travailleurs pour une assemblée générale et aussi continuer le mouvement de grève jusqu'à la grève générale. Donc ceci n'est point exclu. Voilà les possibilités qui s'offrent à nous et nous sommes prêts à y aller. Évasion répétée de Baïmoudou Fall alias Boydiné, le forum du justiciable et l'Azred se disent surpris d'une telle évasion d'une prison de haute sécurité et quelle conco-assistance. Voici Ibrahim Sall de l'Azred au micro d'Amadou Moussa Fadia. Oui, tout à fait. Je, je confirme qu'il y a un communiqué conjoint entre l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus et le forum euh, du justiciable que dirige M. Babakarba. On a appris à travers euh, la presse le détenu euh, Baye Modou Fall dit Boy Djiné s'est évadé de la prison du camp pénal Liberté 6. Nos organisations, pour avoir visité le quartier de haute sécurité où Boy Djiné était détenu, affirmant qu'il est impossible pour un détenu quelconque, euh, quelconque pour un, pour un quelconque détenu de s'y évader. Ça, c'est clair. Ainsi, nos organisations invitent les autorités compétentes à ouvrir euh, une enquête rapidement pour déterminer euh, les circonstances euh, de cette évasion, si l'enquête révèle effectivement qu'il y a qu'il a bénéficié d'une assistance interne, les autorités habilitées doivent euh, prendre des sanctions appropriées pour euh, décourager ces genres de pratique qui ternissent l'image de l'administration pénitentiaire. Non, pour l'instant, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. On va, on va juste se limiter à ça. En, en tout cas, le procureur a demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire et dans, on va se prononcer sur ça. Emprisonné pendant plus de trois ans pour apologie euh, du terrorisme puis libéré, Saër Kébé

retrouvé le jeune Sayer Kébé à l'hôpital au centre psychiatrique de Fan. Nous avons trouvé un jeune Sayer Kébé dans un état très critique. Il était couché, il avait du mal à parler, il avait même du mal à manger. Nous considérons aujourd'hui que l'État du Sénégal a fait perdre 3 ans et 6 mois de sa vie au jeune Sayer Kébé. Par conséquent, le jeune Sayer Kébé aujourd'hui aurait dû bénéficier euh, d'un accompagnement d'un point de social, d'un point de vue économique, mais d'un point de vue, euh, également de vue psychologique par l'État Sénégal. Mais au lieu de tout Sénégal a décidé de continuer à persécuter les jeunes depuis maintenant euh, quelques semaines. Alors, euh, jusqu'au samedi 22 mai dernier, où le jeune Saher-Kébé, en allant donc euh, réviser sur la corniche, euh, a été interpellé par un 4x4 noir, qui lui ont dit que c'était des agents de police et qu'il devait les suivre pour répondre à un certain nombre de questions. Chose qu'il a refusée, bien entendu, euh, sans la présence de son avocat. On l'a pris, on l'a kidnappé, on l'a amené dans un endroit euh, qu'on ignore encore. On l'a fait dans un souterrain. On l'a même menacé euh, qu'il allait mourir s'il ne répondait pas aux questions de ces agents de police-là. aujourd'hui, nous accusons vraiment l'État du citoyen. Saher c'est un Sénégalais, ce n'est pas un étranger. Aujourd'hui, il a le droit de pouvoir circuler librement, en toute sécurité dans son propre pays. Si aujourd'hui l'État du Sénégal veut entendre Saher il doit passer dans les voies légales, autorisées. Donc nous, vraiment, nous dénoncer cet acte de barbarie, cette violence. Nous, urgence panafricaniste, ne pouvons pas rester insensibles face à cette injustice. Aujourd'hui, la première étape, c'était donc euh, de pouvoir alerter l'opinion. Dans les jours à venir, il y a un plan d'action qui sera décliné en collaboration avec euh, les membres de la famille euh, de Sayer Kébé, mais également en collaboration avec son avocat. Et nous appelons également toutes les organisations de la société civile, toutes les personnes de bonne volonté à venir nous rejoindre ci euh, wolof euh, ñu daal di euh, tënk xibaar yi ci biir ci wolof gannaaw négociation wala sax waxtaan yi amoon diggante délégué syndicaux bu Sen'Eau ak seen njiit mujjuwul artu nag syndicalistes yi daal ba tey taxaw fi ñu taxawoon nee nañu sax. daañu déposé ab notification conflit collectif foofee ca biir direction bu travail ñu teewloo Mar Ba mooy délégué syndical bu Sen'Eau ci micro bi Birama Ndiaye. waa Sen'Eau direction bi dañu amoon ndaje waxtaan ak euh, délégué syndical yi jëm ci enveloppe waxtaan ji nag amaloon nañ ko ci aljuma bi passé diggante 9h30 ba 16h waaye nag mbetteel la ñu am ci waxtaan jooju ndaxte jurul dara. ba waxtaan bi tàmmalee ba ba muy pare direction bi def tegul lenn lu dëgër ci kaw table bi loo xam ne waa délégué yi ak représentant travailleurs yi mën nañ ko jàpp ngir ngir ngir juboo ak ak direction bi loolu nag du lu ñu bett ndax direction bi depuis seen o ñëwee ba léegi amul lenn lenn luñ defal travailleurs yi ba tax na travailleurs yi ñëpp kenn kontaanul ci seen o li ñu doon xaar dafa bari li doon xaar volop d'avancement bi ñu SDE daan jox au moins ñoom ñu jox ñu lu ko ëpp tuuti ñu ngir ñu mën see jàppandi ñu xam ne am avancement am na waaye ci mbetteel bi ñu am mooy li SDE daan def sax defuñu lu luy tollook loolu moo tax euh, waxtaan bi moom jurul jubo te loolu du ñu bett ndaxte indiwuñ dara dañ fa nekk ci ay waxaale waxaale yu métti waxaale yoo xam ne mel ni ku nekk marché Colobane loolu jurul dara ba ñu xamee ne narul jur dara ñu dem bàyyi leen foofu loolu moom franchement du lu ñu bett ndax ñi parewuñ pour defal dara travailleur ci waxtaan boobu am na ñu beddeeku seen ginnaaw dem waxtaan ak direction bi loolu lan ngeen ci wax. waa loolu si si tu tuuti nit bëriwul ñi des foofu bariwul te ils ne sont pas représentatifs ñooñu moom taxul ñuy wax mënuñu signé lenn luy engagé travailleurs yi c'est une minorité boo xam ne ils ne sont pas représentatifs amuñu benn pouvoir boo xam ne mën nañ ko signé luy engagé travailleurs yëpp ñooñu lañ fa bàyyi te ñun ba ñu génnee sax matul sax quinze vingt minutes après ñoo ñu génn topp ci ànd ak ñun ba tax na mën nañ jàpp daal accord amul ci gàttal. léegi lan ngeen fas yéene def. waaw liñ fas yéene def moom mooy jàll à un niveau supérieur yéeg ci kaw. comme que waxtaan ak ñi dig début d'année ba léegi jurul dara dañu leen fay bàyyi jàll ci kaw ci kaw noonu lépp lu ñu yoon may dinañ ko def dinañ tàmmalee ci dem inspection teg fa lu ñuy wax notification de conflit collectif ñu ci jógee dinañ def déclaration dinañ def tamit conférence de presse dinañ def tamit assemblée générale woo yi yëpp amal leen lu xew mobiliser travailleurs yi et dàq ñu ci ba grève général Baye Modou Fall alias ki ñuy wax booy Djiné daal di rëccat ci prison bi mu nekkoon nag euh, forum du justiciable ak daal ñoom ne mbir yi jaaxal na leen tarab nañu def euh, na nu kii euh, di Baye Modou Fall di alias Boy Djiné def ba rëcc ci prison bi mu nekkoon ci jamono bi nga xamante ne nag kaaraange bi mat na sëkk foofe ca biir prison bi mu ne nag faw rek ñu tijji ab l'enquête ngir xam daal nu mbir yi demee bu dee sax am na ku ko jàppale ba mu daal di rëccu ñu daal di koy teg ay daan Ibrahima Sall euh, bokk ci SRED ñu tewlu ko ci micro Amadou Moustapha Dia. Ibrahima Sall maa ngi lay nuyu. kon Ibrahima Sall euh, bokk ci ASRED ñu teewlu ko ci micro Amadou Moustapha Dia. ko ñu ngi ñun ak forum du justiciable bi nga xam ne monsieur Babacar Ba moo ko jiite maanaam yëg nañu ci xibaar bi ci presse bi taskatu xibaar yi. ñu ne détenu bi nga xam ne moom la ñuy wax euh, Baye Modou Fall euh, ñu ñu gën ñu di ko dàqantale turu booy Djiné moom rëcc na ci kaso bi nga xam ne moom la ñuy wax prison euh, Liberté 6 bu Ndakaaru ñun nag suñuy organisation muy forum du justiable ak ASRED association pour le soutien et la réinsertion des détenus visité nañ foofu nga xam ne mooy bërëb bañ ko jëntoon ñu koy wax quartier haute sécurité bi nekk ci camp mais bi ñu ko visité li ñu suñu bët may xam nañu ne foofu benn doomu aadama mënu fa rëcc te jàppalewuñu la ñun loolu lañ gëm parce que xam nañ ne kaaraange am na foofu noonu ci foofu suñuy organisation ñi ngi woo autorités yi nga xam ne ñoom la ñu dénk wàll boobu ñoom ñu jël ay ay matuwaay xool ci yan anam la xale bi rëccee ci ci foofu noonu mais également bu fekkee ne enquête bi wane na ne moom dañu ko dafa am ndimbal ci biir loolu aussi autorités yi nga xam ne ñoo war a jël ay daan ak ay dogal ñu jël ay daan parce que genre jëf yooyu dafay décourager loolu le personnel pénitentiaire parce que foo gis am na ñu baax am na ñu bon am na ñu jub am na ñu jubadi mais genre pratique yooyu dafay décourager loo administration pénitentiaire ak fu metti fi mu jóge ak fi nga xam ne fa la yegg si nii tey loolu day ternir image yu institution bi. da ngeen jot ne dafa am ko jàppale si biir rëcc bi. waa ñun loolu en tant que ASRED mënaguñ ci àddu parce que dañuy respecter toujours article dix bu déclaration universelle des droits de l'homme bii di wax si principe. de présomption d'innocence parce que boo ne diw jàppale ne ko wala nii rek dafa mel ni yaa ngi tuumal kon ñu li ñu yëg ci xibaar yi loolu rek la ñu mën a tënku procureur joxe na ndigal ne nañu nañu def enquête enquête boobu dina leeral bés bu enquête bi leeree dinañ ci àdduwaat CRKB ñu tëjoon ko di diirub euh, ñetti at pour apologie terrorisme ci noonu daal lañ ko daal di teggee woon yoxo ba tey nag CRKB yaramam mi ngi wéy di jagadi moo waral sax ñu daal koy euh, yóbbu foofe ca hôpital ca benn hôpital psychiatrique kii di urgence panafricanisme mu ne nag euh, daal di génne ab communiqué di mettitlu daal li ñu mel mu ne nag daal di nay porté responsable kii di état bu Sénégal ci lépp li nga xamante ne nag nag dal na kooke ah, di ah, Sayer Kebe te sax dina wéy di ko jàppale ah, dañuy teewlu Khadim Mbacké Sall ci micro Babacar Samb di 29 mai ñun waa urgence panafricaniste euh, demoon nañ seeti ji euh, ndaw bu ñuy wax Sayer Kebe Sayer Kebe dafa feebar actuellement nekk ci benn état wu critique euh, am ay problème pour lekk am ay problème sax pour wax ak waa famille Euh, juste pour lii rek Sayer Kébé mooy ndaw boobu nga xam ni en 2015 état du Sénégal daf ko accusé woon terroriste euh, état du Sénégal jàpp ko tëj ko ci kaso bi ñeent at ba pare doog ko jugé bu ñu ko jugé nag état bi jàpp ni moom 6 mois rek la waroon tëdd ndax commentaire bi mu defoon noonu ci Facebook bi euh, bu weesoo loolu état du Sénégal te ñu jàpp ni ñun daf ko waroon accompagner daf ko waroon accompagner jox ko ndàmpaay ndax daf ko tooñ jox ko ndàmpaay ba pare accompagner ko topp ko. Euh, sur le plan euh, psychologique sur le plan social ngir mu mën a delluwaat ci société bi comme ñëpp état yu Sénégal nag defu loolu yëpp waaye euh, dafa nekk di ko topp di ko buntu xatal di ko sonal ba fan yi passé rek samedi 22 mai Sayer Kébé dafa demoon pour réviser ci corniche bi am benn oto benn 4 x bu ñuul vitre teintée bu ko dogaale ñu ne ko ay policier leen dañ ko bëggoon poser ay questions pour mu tontu ci mu bañ ne du ci tontu tant que avocat am euh, nekku fi ñu jàpp ko kidnappé ko dugal ko ci oto bi yóbbu ko fenn foo xam ni kenn xamul fan la fan fan la nekk dugal ko ci benn souterrain di di ko di ko jéem a forcer pour que mu répondre ci question yooyu mu lànk ne du ko tontu ñu ne soo tontuwul di nga dee mu ne leen kon bu dee loolu la man pare naa pour dee bu loolu weesoo euh, ñu teg ci ñaari fan lundi bi ñu génne ko Euh, sànniwaat ko ci corniche bi mu nekk ci benn état bu critique taxoon na sax ba ñu indi ko fii hôpital Fann euh, centre psychiatrique jaay doole boobu nag ñun duñ ko bàyyi ni mu sedd moo tax ñun waa urgence panafricaniste dañu décidé ni que dañ koy gunge accompagner ko ci xeex bi fan yi di ñëw incha allah ñun waa urgence panafricaniste ak tamit membre euh, famille bi am na benn plan d'action bu ñu war a tëral pour mën a xeex injustice boobu bokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi di leen jaajëfal bu baax ci seen oon beeg seen rajo di fi taataane xibaar yi ay surtout guy bànne woon ci kàddu gi ñu gërëm bu baax a baax ki di Alassane Wade moom mee fare woon ci machine bi ñu fanaan ca